waaw problème bi mën nañ ne amul amul benn jéego bu ci am ndax fi mu yemoon rek la yem euh, directeur bi problème bi amee ministère bi yéegoon nañ ko ndax ñun lépp étape par étape xam nga problème dañoo xëy dégg ko ci presse bi mais lu jiitu loolu problème bu mës a yëngu informé nañ tutelle pour tamit ñu taxaw ci parce que tamit ñooy suñu kilifa après tout même fekkee ne APS am na autonomie de gestion dafa am ministère de tutelle boo xam ne moom lañ ko rattaché donc ministère bi dem nañ fa directeur de cabinet bi wax nañoo moom wax nañoo directeur euh, de la communication bi ay yooni yoon ba ministre bi addu woon ci ba génnee woon lettre bu waroon jeexal problème bi yëpp le directeur dafa jël lettre boobu teg ko fële def lu ko neex doxal lu ko neex bi ñu fekkee suñu bureau yi nag euh, euh, buntu xataal ñu brutaliser ñu Euh, ci la lépp siwee ci internet bi ndax wax dëgg yàlla ñëpp naqarlu woon ko jooy ko après nag si la ministère woote waxtaan léegi ñun amoon nañ avocat jamono yooyu ba avocat bi commencé woon gérer dossier bi mais ministère bi ñu woowee waxtaan ñu xam ni coow tamit amul njëriñ te coow yëpp ci taabal waxtaan la jeexee ñu nangu woon loolu dem ministère ñun ñaar ñii nga xam ne problème bi ñun la concerné ak Bamba Kassé mi nga xam ni dañ ko cee suspendroon ñu dem ministère waxtaan waxtaan na ñaari weer ba d'accord ci ay euh ñu xamni ni moom document yu yoro la laaj kenn xamu document yu mom moko soxla dal ñun tamit ñun nangu ko joxe parce que du suñu document document APS la ñu jox ko ministère bi tek ko ci loxo secrétaire général bi parce que tamit ëllëg tax secrétaire général bi jël document yi directeur loolu rek la laajoon ñun tamit ñu laajoon delu waaye tamit ñu bañ a ñu tegaat ñu suñu place ndax ñun ay cadre lañ même bu ko neexee mu teg keneen ci fi mu tegoon mais ñu respecté suñu statut cadre bi ñu yoroon ñu tënku ci yooyu yëpp ñu bàyyi lépp ci loxo secrétaire général bi secrétaire général bi woo directeur ñu jox ko document yi moom mu déchargé décharge yi ci secrétaire ministère bi gàdd ci koppi ñun ñu jox ñu ci copie directeur bi def jël copie am ak document yi ñaan nag ñetti fan pour indi yi nga xam ne engagement yi nga xam ne moom la jëloon mooy jëlaat yeneen note décision yoo xam ne day day day day day day annulé lépp lu mu jëloon ñu delluwaat suñu liggéey jàmm ñooy mu ñaan ñetti fan ñetti fan yi weesu ñëwul fukki fan ñëwul ñaar fukki fan ñëwul bi mu amee weer ci la ñun ñuy laajte rek fu mu toll parce que boobu tamit euh, affaire yi yàgg na am na ñaari weer te lu jiitu waxtaan bi sax donc bu ñu xoolee ci calcul ñun togg nañ ñetti weer yoo xam ni euh, fayeekuwuñu donc ñu toog ministère SG ñu dem gisante secrétaire général bi mu xamal ñu ni directeur bi daal engagement yi mu jëloon respecté wu ko. donc ñaanoon na ñetti fan te fi mu ne nii àgg na ci weer te deful li mu waxoon te moom day bañ tamit comme waxoon nañu fu mu mënti tool dinaa leen ko wax day bañ tamit ñu toog di xaar di de temps te du ñu mën am yeneen yoon yu ñu aw pour am jotaat suñuy àq ak suñu yeleef léegi nag xamal ne ni comme ministre bi moo ko santoon moo directeur de cabinet bi ñu def waxtaan bi ñoom rendre nañ compte ministre bi et que dossier bi mi ngi ci table ministre bi ñu xamal ñu ñu d'accord ci loolu jël loolu amuñu pexe. ñu xam ni tamit bu ñu toogee nii rek tamit amaana dëkk bi li fiy problème dafa bëri te fi mu ne nii ñëpp seen xel mi ngi ci corona bi te nag tamit ay borom kër lañu corona bi tamit ñëpp ko yëg te vraiment ñu bëgg tamit yuuxuwaat pour nit ñi dégguñu kilifa yi ci war a jot jot ci peut-être ministre bi xëy na mu baral loxoom ci taxawaay bi ndax ay borom kër lañ te foofu bu ñuy jamono yooyu ñuy wax loolu yeneen agent tamit xamal nañ ñu ñi directeur bi. non sa daf leen affecté ñu dafa affecté kenn ki Cheikh Ndiaye la affecté na ko Louga jox ko frais de mise en route tam donc mënul dem bu frais de mise en route bi génnee ñu jox ko ko mu jël ko dem Louga fii may waxee yow mi ngi Louga weer bi daal toog na gisul salaire mu dem ci comptabilité bi ñu ni ko directeur nee na yow tamit dañ dagg nañ sa salaire ba jëmmi jamono te moom buy dagg amul àpp Bamba Kassé noonu la ko def dagg na ko boobu ba léegi amul àpp muy yoo xam ne dañ koy naqaru dañ koy ñaawlu nee naa euh, euh, xeex bi ñuy xeex bu weesoo suñu jëmm ji dañ koy xeex ndax APS dañ koo ñaqal sonal ko gëm APS euh, Fatou mii ma lay wax moom moo yoroon changement de statut bi bi kilif bi njiitu réew bi joxe woon ndigal pour APS ñu soppee xar kanamam directeur ci boppam moo ko sampoon pour mu jiite euh, travaux yi muy àndal ñu ànd ceeg directeur du secteur parapublic direction du secteur parapublic ñu liggéey ci ñaari at parce que avril 2017 la liggéey yi commencé woon ñu ci liggéeyee nag ñaari at ba affaire yi ñu voté loi bi nga xëy dàq ñooñu. ci ñoo xam ne ay kilifa lañ loolu tamit dañ koy ñaawlu ñaawluwaat yeneen yi xew ci kër gi tamit te taxawaay bi ci simpix waroon am ñun gisuñu ko ci. Euh, simpix génne woon na mooy benn bi génne woon na communiqué euh, pour euh, pour pour ñaawlu ko violence yi ak tamit ñaawlu ni directeur général bi. ndax secrétaire général simpix bi ci boppam moom suñu collègue la Bamba Kassé ñoo bokk fi ñuy liggéeyee te ñoo bokk tamit li ñuy dund ndax moom ci boppam dañ ko suspendre donc le ben bi génne woon na communiqué ci début bi. ñu dem ministère tamit ñoo daan ànd Bamba pour parce que ñoo bokk problème bi mais ñun tamit euh, ñi ngi woo Synpics parce que tamit euh, jàpp nañu taxawaay bi ñu ci waroon am dëgg-dëgg des na ndax xam nga bu ñu demee ba ay liggéeykat ñu dagg seen salaire ñetti weer secrétaire général Synpics si boppam moom ñu mën ko suspendre ñetti weer ci loo xam ne kuy am problème moo la ko war a taxawul euh, ñun suñu position ci début bi ba léegi mooy. des nañ taxawaay bi ci war a am des na ndax ñun tamit ay liggéey travailleur du média lañ dañ doon fay chaque weer dañuy dagg suñu salaire ñu koy verser Synpics donc bu ñu amee problème génn gi ñuy génn ñii sax warul ndax problème bi muy doog am ñun télé yi jël nañu ak rajo yi ñun dañ Synpics loolu moo waroon jouer rôle boobu protéger ñu ndax euh, ñoom loi moo leen protéger te ñun fu mu nii dañoo dem ba. ñu xam ni bu ñu toogee nii day naax saa de ñu jógal suñu bopp tamit parce que tamit après tout ay cadre lañ ci dëkk bi suñu baat war na mën a dem ñu taxaw ci donc ñu ngi leen di woo daal pour man dossier bi ñu gën ci am taxawaay ndax tamit yàgg na ñetti weer moom ci loo xam ni waroon nañ ko mën a régler ci lu gaaw euh, vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi leen ci woo ndax suñuy naataangoo lañ te xam nañ ni tamit euh, war nañ ci mën a taxaw daal. xeex bi mënul mënugul mënul yem fii ñun euh, xam duñu duñ ci yem fii ndax. gëm nañ ni dañ ko gëm moo tax te gëm nañ ni dina sotti te gëm nañ ni tamit kilifa yi bu ñu ci jotee nañ ci taxaw ndax lii kenn mënu ko seetaan APS agence de presse sénégalaise taxawaay bu mu am ci réew mi ci côté média kenn naa table wutu ko donc moo tax ñu xam ni comme injustice la ñu ci war a jot bu ñu ci jotee dinañ ci taxaw lu mu gën a gaawee ndax fi mu ne nii tamit bu weesoo suñu jëmm ji kër gi waxatuñu waxi liggéey ak yooyu waxi xeex ak xuloo dàqe ak ngay dégg ay suspension ci kër goo xam ni président dafa taxawoon pour jox ko beneen xar kanam joxe woon ndigal ni nañ change statut yi ñi ñuy liggéey ci ñaari at ba ñu voté loi bi assemblée li ki desoon mooy yeneen liggéey pour président mën a promulguer loi bi bu ñu waree taxaw fii jamono yi saa yu ñu déggee APS dégg ko ci ay coow ak ay suspension loolu gëm naa ni euh, kilifa yi dinañ ci àddu balaa yàgg te ñun tamit euh, dossier bi muy doog a door euh, suñu avocat bi ñu jëloon commencé woon na pour dem ay inspection du uti ak tribunal du travail léegi nag bi ministère wootee waxtaan ci la taxawal lépp xamal ñu ni waxtaan daal moo gën lépp ndax coow amul njëriñ ñu nangu woon lool te loolooy dëgg waaye nag fi mu ne nii ministère comme dem nañ fa ay weer eh, amaguñu ñun dinañ waxtaan ak avocat bi eh, xool yeneen eh, jéego yu ñuy tegaat mais man gëm naa ne problème bi sax du àgg foofu yëpp ndax kilifa yi dinañ ci taxaw ndax agence de presse Sénégal li muy représenté ci réew mi la te mérité wul jamono yi li fay xew ak li fay dund.